dañu taxawal suñu benn kurel bo xamni sa suñu bëgg bu ñee noggatu suñu mère wala ñu bëgg leen jaay doole kiko bëgg def na xamni du jakarlo kessé ak benn mère waye yewi Askan bi yépp lay jàkkaarlool leader yi ba ci maire yi ba ci militant yi ba ci sympathisant yi ñun duñu togn de prérogative état duñ ko jalgati waye duñu nangu état central aussi di jalgati suñu prérogative yooyu yëpp nag moo tax ñu ne dañuy taxawal suñu kuréel tuddee ko réseau des élus locaux du Sénégal en acronyme mu doon réel Déthié Fall nag nee na ñun neewuñu ñeneen ñi ay faux lañu waaye ñun xam nañu ñun ay réel lañu réseau des élus locaux du Sénégal réseau bobu day dajale ñëpp nak yemuñu ci maire yi waye dañ ko yaatal ba ci président conseil départemental yi yemuñu ci Yewwi Askan Wi kessé tamit maire bu japp ni par rapport ak say objectifs ak li nga soxla ci xam-xam ak ci façon bi nga bëggé gérer sa mairie mën nga ko am ci réseau des élus locaux du Sénégal xamal ni am sa place ko les autres maires de l'opposition tëjaluñu ko kenn waye dama même maire bu nekul opposition Bo togué ba gis ni fi nga commune ak ñun offrir ci plateforme gis nga ko ci suñu réseau bi sa place ñaaral bi moy jox suggestion élus locaux parce que budget élus est pratiquement pratiquement budget municipalité il amna ben ligne bu ñu voté woon tuddee cotisation à l'association des maires du Sénégal ñu jox suggestion tous les maires ñu def virement de crédit voté ko par leur conseil loolu ñu waroon verser à association des maires du Sénégal verser nous ko au réseau des élus locaux du Sénégal bi nga ci nous Nous li nga droit la prévoir ko xam ngeen ni am luy ci état bi di association des maires du Sénégal jamono ji mu association lañ ko verser comme ñaari association la day jaadu la ci wara réseau des élus du Sénégal ñëw ci la association des maires du Sénégal parce que lolu àq la dara ba devant la Cour suprême parce que non, la un élu est un élu et on est sous le régime de la liberté d'association nañu xamni que association yoyu du ay institution du loi moko liberté d'association mais la maire bu mu neex sax nga ne ci association